asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen xam ngeen comme li ma koy wax rek du mën a ñàkk làmb la ñuy def tey nag defe naa ne fi ñu nekk mooy rëbës rëbës moom ku ko tudd tudd goxu làmb ndax ay mbër yàgg nañ fee yeewoo yaa ngi dégg tey ci mbër yooyu nga xam ne dañ fi yeewoo am na ci koo xam ne nii waa làmb xam nañ ko bu baax a baax muy njaaxum di doomi bawal yaa ngi dégg waaye di yeewoo rëbës loolu la yàlla dogal tey nag ñëw fas seq moom waxtaan parce que ci làmb la bokk am lu mu ci jot a wone ñu gëj koo gis lool xamuñu ci lu mu ne te comme li ñuy wax rek ñun moom la ko commencé ci Laurent des Arènes ba ci mbir mbër mi mujj a dagg tey licence Gomis ñëpp benn lañ ci ñun. moo tax tey ñu ñëw seet si ko ni fas yéene ne ak moom waxtaanak moom fi nga xam ne moom mooy garam place am njaaxum maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw Babacar maa ngi lay fay ginnaaw ma sant yàlla julli ci Muhammad sant samay ñaar waajur di sant waa Bawol nga xam ne fa laa dëkk ak Rëbës nga xam ne fi laa yeewoo di sant ñëpp koo xamante ne rek yaa ngi may jàppale ci làmb ak ku mën di doon di leen san yéen ñii yéen ñuy bàyyeekoo ah, ñëw waaw ñëw seet si ma maa ngi leen san bu baax di rafetlu seet si bi waaw di gërëm képp koo xamante ne da ngay sonn ci ku ci mel ni sama nijaay sama fii nga xamante ni ku may wër ku ne rek fi nga may fekk muy fii sama jigéen daba ñooñu waaw ñoom laa nekkal fii waaw. fii ñu la fekk mooy fan. fii mooy rëbës. waaw waaw fii mooy rëbës. waa Equivox tey ñëw seet si la. waaw noo gisee déplacement bi ñu def tey mu ñëw si yow. waaw déplacement bi kontaan naa ci torop di leen ñaanal ngeen dem ca kaw ca kanam ngeen ñëpp ngeen dem a dem ba am seen télé bopp seen yëpp. waaw moom laa leen di ñaanal. waaw mais Ndiakhoum bu ma dese sa carrière làmb Ndiakhoum carrière làmb bi fan la fan nga ko débuté lu tax nga dugg ci bëre ak koo doon xool ba dugg ci bëre lu mbir yooyu mën nga ko leeral. waaw Babacar loolu ba ma ko laajee dama ciy sawar torop parce que man Sall Ndoye mooy sama nijaay mook sama yaay ñoo bokk ndey ak baay moo mujj a dóor euh, sénégalais mbuur mu daanu kooku mook sama nijaay mook sama yaay ñoo bokk ndey ak baay soo ko sama nijaay la et ma dégg ak ay samp yoo xamante ne nii ñoom dañoo def lu ne ci làmb ku ci mel ni Cheikh Mbaba ku ci mel ni Sallo Katide Assane Faye xam nga ñooñu ñëpp ñoo wax gën kippaar gu ñuy woo gunu dëkk peñ munu dëkk xam nga ñooñu muy réew maawoo xam nga ñooñu ko xool ci ñoom rek ay Modou Awa yin champion yoo xamante ni mooy loolu xam nga ñooñu ko xool ci ñoom donc bëgg làmb waaw ñooñu ñoo gën a tax ma bëgg làmb man waaw. kon ci ñooñu dafa am ci doon roy. non man nag boo bëggee dëgg ñoom ñëpp samay idole la ñu parce que ñoom ñëpp ku ma ci ku ne ku ma gis rek damay def comme ni sa rak joo bokkal ndey ak baay di ma boo xoolee sax ñoom ñoo ma dugal ci làmb parce que man dama daa dem rek di foontu ci entraînement yi benn suulanu ma ne il faut man mën ngaa ñëw doon bëre quoi bi may dugg sax sama papa nangur woon loo tax jot ma a ñime parce que sama mag moo ma dàq na bëre fuuf te paa bi dafa bañoon mais ñoom ñoo ma may fit dem ci paa bi ba paa bi ba ma waaw. kon dëkk ba nga commencé bëre. waaw dëkk ba laa dëkk ba moom dama faa mbapat ba tas moom waaw foofu moom dama faa mbapat ba tas mën naa ne dëkk yi ma fa bëriwul bëriwul bëriwul mbapat ak ay grand combat ay lambi tabaski yow xam nga ba ba Babacar yow parce que foofu nga dëkk waaw guy gi mii boo gisee sama combat moom sax foofa laa ko bëree lambi tabaski laa bëri moom boox waaw maag guy gi te saa buy lim man lay njëkk limbaale kon xam nga ne toj naa foofu. waaw boobu moom mu ngi door yow ngay door. waaw boobu moom mu ngi door ba man boobu bëreegu ma fi sax mais boobu li ma def foofu dafa bari parce que Tafa si ñor la nu fa indi. ma waaw bu faas ma duma ko daan ko ay jàngi reefan tabaski ñu jox ma ko boox ma bëreeg moom loolu sama combat gi nag. sa gi mën nga ci ñëwaat. waaw Babacar mën naa cee ñëwaat parce que sama combat guy gi. bi ma bëree guy gi ma dama jàpp ne man ku nekk sama kanam rek maa la man waaw combat boobu looloo moo ko ñàkkloo te it moo ma def mbër combat boobu moom ma loo ma ñàkkloo te moom ma def mbër parce que dama yaakaaroon ne ku nekk ci sama kanam sama morom may jéggi rek ma daal di jàll yàlla dogal nu ñëw smaak moom ñu bëree bëre bu neex yàlla may ko ndam ma koy ñaanal bituwaar bi ji ko mën naa ne mën naa ne sax bituwaar boobu lu dama defar ko waa man moo ma defar man Babacar waaw moo la defar moom it mel ni moom fa la làmbam tàkkee. voilà jël boobu ma daan man moo ma defar parce que ba ma ca ba tey moom yàlla dogal na macha allah daal. Mm-hmm. guy bi nga koy jël xam nga ko boobu. guy gi bi ma koy jël maanaam ay combat laa doon seetaan muy teglante combat yu bare di bëre ji daan mooy loolu ko quoi nu wax ma ko ma ne leen na ñëw ma korosi ko te loolu laa gëmun itam waaw ma dem gis nga ni ko yàlla dogale waaw. ñaata combat nga def arène. man maa ngi ci ay treize combat treize combat. non 14 14 combats waaw. ñaata victoire ak ñaata défaite. am na deux défaites. waaw 12 victoire kii ma daan mm, Garga Mbossé ak guy gi waaw. waaw yooyu rek yooyu rek nga ñaan. parce que boobu danu ko cee boole boobu noonu. waaw danu ko cee boole waaw. waaw waaw. Eh, yaag Baara Ndiaye. maag Baara Ndiaye ku xam na ni mu demee Babacar. Babacar maag ba Baara Ndiaye mooy loolu non boobu sax duma ci faral di parce que léegi mooy loolu quoi parce que xëy na làmb nu boole wan jege ñee na nu mu dëkk Colobane man ma dëkk Rebeuss gi lam boole nu bëri li ci am am na léegi jàmm la nu seex jàll na léegi waaw parce que dafa dafa nekk samay boo yoo xamante nii boo yoo xamante samay waay lanu sama noo bokk écrit samay doomi ndey lanu ay Mor Kankayin ay Bakary xam nga ñooñu bu dëggee ñoom ma bëri ñoom loolu lam rek moo ko man lama ñu boole ñu bëree jàll na jàll na hmm. mais mais depuis nga jógee foofu ba tey bëriwaat nga defe naa Baara Ndiaye nga mujj bëreel wala. Baara Ndiaye ma jógee Ousmane Diop la Aline Diop laa bëreel waaw. Aline laa bëreel waaw moom saison bi ñëw ci la feebar bi amee ba ni ma lay yow nii Aline Diop waaw daan waaw. Hmm. bi nga fa jógee ba tey proposé waat nañ la dara. waaw bi fa jógee ba tey proposé nañ ma ay champion yu bari mais xëy na man su ma bëriwul rek mbas mi dugg fii moo tax nuy ñaan yàlla génn ko fekk jàmm mu set fi wécc ba nu nekkaat ci activité. moo tax bëriwu ma mais wax dëgg ba ni mbas mi am sax laata couvre bi am sax ñu ngi may woo di ma di ma di ma komp ay mbër waaw. Hmm. a ah, bari na ay Cobra bu Pikine wax na ma ko ay Aline Seyil ñoo ñëpp mais man bu ñu waxee rek dama naa leen moom maa ngi nii rek ku pare pare naa. Aline Seyil ak Cobra bu Pikine. Euh, waaw Aline ak ay Cobra bu Pikine ñoo ñëpp wax nañu ma ko waaw. yow d'accord moom man moom. du ma daw mbër moom. mbër man moom mbër mu mu toll moom. Hmm? doon sama moroom pare naa pour bëreeg yow. Eh, ak di mu diis ak mu oyof a ci yemale parce que mbër yëpp ay champion la nu mooy loolu ñëpp a yem koo ci daan rek am na foo yéeg waaw ku mu ci mën di doon loo tax man moom bu nu nee acca dama naan bu ngeen demee wax ak mbër mi ba d'accord man pare naa ci. mais say combat tam dañu seetlu que ni sayko combat dafay faral di metti di yàgg di dëgër lu xew. waa boo gisee loolu Babacar man duma ma teggi mbër. man loolay sama problème du tegi teggi mbër mbër lu mu diis ak dafa diis ak dafa def yooyu yëpp man xam nga lu ma gëm man sama bopp laa gëm man dama jàpp ne man maa ngi entraîné te li may entraîné ku mu mënta daan amul. parce que mbër moom maag ñi dañu naa mbër moom bu ma comme ay Cheikh Mbaba yi naa mbër bu ma tee quatre-vingt-dix kilos ku mu mënta daan amul te man ëpp naa loolu kon xam nga ne ñooñu. dëgg la ay luur te luur il faut nga bëri moom noonu luur il faut nga bëri moom xëj ko ba mu jeex nga soog di am li nga bëgg mais boo bëggee ñëw a ñëw xuus ko day metti ci yow waaw. loolu moo waral des fois ngay bëree noonu. waaw looloo waral sama combat yëpp yu mujj maak Baara njaay gis nga dama koo xëj maag Aline Diop ay Boy Naar Fallin ñëpp gis nga boo xoolee boo seetloo samay komba gëj naa ñëw ci combat di accéléré gëj naa ñëw ci combat damay ñëw teey koos ba affaire bi metti ma soog di may def mu jeex. xam na booy def li ngay def dara du fa nekk da ngay dem rek dem sa yoon waaw. actuellement ak mbas mi ñu nekk nii nooy dundee mbas mi yow en tant que mbër moo xam ne waroon nga am avance bëree wo mbër yi waaw nañu ubbi làmb ji tëju depuis boobu ba tey presque un an noo koy dundee. waaw mbas mi moom ñu ngi sant yàlla bu baax waaw dëgg la bëriwunu nag mais bëri nu bëggoon parce que nun noo opté doon mbër. di entrée entraîner ba jeg te mbër moom saa buy entraîner guddeeg bëccëg bëre la am mais nag dañu koy sant yàlla parce que yàlla moo xam li tax mu def loolu man mbas mi mën naa am mën naa bañ am leneen lu gën a metti ñëw kon bu nu toogee bëreewuñu dañuy sant yàlla nu ngi jàpp suñu liggéey di liggéey di wàcc di ñëw di entraîner ji di tëdd waaw mbas mi nag nuy ñaan mu génn fekk jàmm ba ñun ñëpp kenn ku ne nekkaat ci la nga nekkoon waaw loolu la ñuy ñaan. yow yaa ngi liggéey. waaw man maa ngi liggéey. luy sa liggéey man pièce de taille laay def. pièce détachée jaay. waaw moom laay jaay waaw. waaw kon yow boo ko ci mbër doo mbër muy somme daal même bu lamb amul yaa ngi ci leneen. non man bu lamb amul maa ngi sant yàlla bu baax parce que macha nekk naa koo xamante ne nii ah bëgg na ma te jaral naa ko lu ne. waaw ci moom laay liggéey muy ndongo postu caaro yi di nuyu waa postu caaro yi gëpp bàyyiwuma kenn waaw di nuyu itam sama nijaay ngumba sama jigéen daba ay sama waa garam place ay xaadi mbin ay jaasin ñooñu ñëpp xamaa noonu sax boo ñëwee fii rek ba ma fekkul foofu fee fii nga may fekk parce que man fii laa xam waaw léegi dafa am laaj bu ma la bëgg a laaj euh, benn combat muy combat guy gi ak ki nga xam ne moom mooy rëg-rëg guy gi bëre ngeen rëg-rëg xaw ma bëre ngeen xaw ma bërewu ngeen combat boobu am na ñu bëri boo leen laajee dañ naan rëg-rëg moo mën guy gi ñenn ñi bañ yow tey loolu yow mi bëree guy gi yow guy gi est-ce que mën na ci dara rëg-rëg comme ni ko ñen ñi wax am ñoo xam ne dañ ne mënu ci dara yow loo gis. Babacar man moom du ma nangu ne guy gi mënu ci moom dara parce que xam nga ma jàpp dama koy xoole sama bopp rek man dama jàpp ne mbër moom saa bu xoolee moromu mbërëm lekk avance am mën na ci moom dara te boo seetloo combat guy gi chaque jour bu ne guy gi day dee da ciy génn yaa ngi xool li ma la wax bu baax li ma la wax xoolal bu baax combat guy gi. saa bu nu nee guy gi day dee day génn ci komba boobu kon combat boobu nañu ci teey bu baax a baax ñoom ñaar nag téeméer gaañ samay adversaire lañu ñoom ñaar ñëpp kii bëri nag moom kii bëgg naa bëri ak moom téeméer gaañ ku yàlla may ndam ñoo xam ne lépp Sénégal la nekk. mais guy gi am na qualité bu mu daan rëg-rëg. ah guy gi ñaata combat la ñaata bituwaar lam am bituwaar yëpp du taxaw rek ñu ñëw fenk ci kawam jaaxaan kon xam na qualité bu daan bër ah waaw. rëg-rëg itam champion la def na lu ne ci lig lig arab gis nga MMA bi bëgg de moo njaay sigil na Sénégal waaw ñoom ñaar daal ñaari champion la nu ñoom ñaar man loolu laa gis kenn ku ne mën a daan sa sa morom bu kenn koo xamante ni nga tëdd sa roq ni ki may bëreel maa ko man mooy loolu kenn ku ne liggéey la war nanu liggéey ñoom ñaar ñëpp ku yàlla may ndam noo xam ni kooku la yàlla may ndam guy gi moom dégg nañ ko mu ne dina ko bu arbitre bi da koy duma bëri loo ko mu son daan ko rëg-rëg dina loolu guy gi mënu ko guy gi mën naa bëri loo rëg-rëg ba mu son duma ko daan ko euh, lam moom lu ñu ci mën a am parce que lam léeg-léeg da ngay gisee fii lii ñëw am léeg nga xalaat lii leneen am mais lu ne daal ci mën a am waaw parce que ñoom ñaar daal ñaari champion lañu kenn ku ne lekk nga sax avance morom jàpp ne kii su ko jàppee dama koy daan kenn ku ne li nga gëm ngay wax guy gi am na droit nga wax loolu waaw mam man bu doon mën a sax moom laay wax parce que sama ngëm-ngëm waaw waaw <laughs> tafaatin booy ñaa ah tafaatin ñaa nuy ñaan daan jël bu rëy waaw mën naa daan jël bu rëy tafaatin man kay waxuma daan moom daan daan <laughs> Babacar ce que mën na ko est-ce naa daan ah, man dey man mboog hmm? dëgg booy ñaa mën naa bëre macha allah mais man bala ma gëm ne mën naa daan tafaatin ma gis ko waaw. lu tax waaw parce que tafaatin champion la xëy na nag ay jafe-jafe day am loolu la rek da cee nekkoon jafe mu ne ci dafe yàlla dimbali na ko ba bëre na fi mu ne ci bituwaar la toog kon man jàpp naa ne tafaatin li ma gis mu bëre ay bombar yin hmm? ay eltonin ay cekin ñooñu su ko booy ñaa booy ñaa du dara. est-ce que bokk nañ qualité. non dëgg la bokkuñu qualité mais itam am na foo xamante ne nii eh, bokk am bokk nañu fii bokkuñu fii parce que poids léeg-léeg boo xoolee ci poids boo xoolee ci poids Tapha moo ko ba moo ko ama moo ko booy bi moo ko fuuf booy ñaa waaw te Tapha xam nga du ragal te tëliwul bëri itam waaw xanaa kay man Tapha Tine lu yàlla dogal ci moom rek ñëw mu war a ñàkk ñàkk mais amul mbër mu ko fi man waaw man loolu laa gis ci moom. waaw am na solo tey rëbës gi nga dëkk nekk fekk ay mbër ay xale say rakk ne fii mën naa wax ñoom double moteur ñoom saal Bawal ak yeneen xale ay ah, boo caatu rëbës boo yooyu yëpp daal ñu ngi fi macha allah yaag ñoom fii ci koñ bi nu ngeen di partager ah, ah, gox bi. no ñooñu moom ñoom ñëpp samay rakk lanu mën naa ne sax ñu ci bari xaaj bi dañu maa ruus xëy na su may wax ñoom sax xëy na dañuy sëgg ndax ruus ma jox ma cër ñoom ñëpp samay booy lanu muy double moteur Saal Bawal caatu rëbës ñoom Gambien ñoom ñëpp booy séeréerin ñoom ñëpp dañu maa def mag ma def leen rak waaw loolu la jàmm salaam dañu seq moom fii ku ci bëree ñu ñëw ba sa kër suñu xam-xam bu nu am nu wax la ko yàlla may la ndam ak lu mën lu la mën di yàlla may rek ñu an koo feetoo ko bu dee defet ñu naqarlu ko bu dee ndam ñu an feetoo ko loolu laa seq ñoom. waaw école ni Cheikh Mbaba ren bi ñu defee maanaam donte saison bi continué wul mais bi saison bi fi mu saison bi daggee bi ñu xoolee benn écrit moo leen jiitu ngeen jël deuxième maanaam meilleur écrit ci ëpp ay résultats ay ndam yu bari yu ngeen am macha allah loolu tam noo ko gisee en tant que koo xam ne mën nañ ne yaay tête de file ba parce que euh, foofu nga ne ci école di Cheikh waaw loolu ni ma ko gisee dama ji sant yàlla bu baax di sant Badou Sow sunu entraîneur ay baay Paate ay Baye Bala parce que ñooñu. xëy na waxuñu nun sax mais ñooñu rek lu ne da leen méritoo nañu lu ne parce que nun ñi mbëri sax nun noonuy njëkk foofu tëdd dinu xaar xam nga na mag muy bàyyi liggéeyam ñëw tëj géej ji la xaar kooku xam nga ne mënoo koo fay kon loolu bu nu ko bu nu ko amee man ñoom laa ci félicité muy ñaanal loo xamante ni muy loo xamante ni ma ñaanal leen mu jigunu booy yi nga xamante ni ñoo ko liggéey parce que boo xoolee école Cheikh Mbaba ponkal bëriwul ren xëy na booy yu ndaw yi ay moor kànkayin ay moor jenin ay njaaxum dëyin ay mm, internet in boo yooyu ñoo fa doon bëree ay Cheikh Mbaba numéro 2 yin te mu yéen bokk dëkk xam nga booy ñoo ñoo fa bëre ren ko ñoo dama leen di ñaanal yàlla def leen ay champion yi champion nu dem bay bëre ay millions ñoo laa leen di ñaanal waaw. xalaat ngeen daal prochaine saison incha allah rabbi ngeen jël kii bi. non deuxième moom ku koy jël premier ngay xool. ñun chaque jour premier la ñuy gis te ñun jàpp ne saison bi bu jàll demoon dañuy jël paie. parce que xale yi moom defar nañu leen waat ba pare nun noo ci desoon te nun noo doon nu ngi doon pare macha allah jaam ak pexeem yàlla ak dogalam nit moom day bëgg dara ci xolam mais yàlla la muy programmer kenn du ko xam waaw mais nag dañuy san yàlla bu baax parce que yàlla moo xam ni tax mu def lii parce que mënoon naa ñàkk def lii leneen lu gën a métti lii am fi dañuy ñaan yàlla nag mu jógu fi ñun ñëpp kenn ku ne dellu ci la nga nekkoon Sénégal nekk ci jàmm waaw. am na solo waaw Babacar maa gën pontaan kontaan ngi leen di maa ngi lay béggee béggee sa gars yi nga yëpp di nuyu waa Rëbës ñu ngi fekk daba sama jigéen kee Adama la sama jaaykatub sii bi <laughs> mooy loolu waaw ke Njaga Ngumba sama nijaay ay Omar Sène ay Albertine Xaadimin waa koñ bi daal moom maa leen di sant ñoom ñëpp waaw parce que wax dëgg daanaka def naa fi dix ans kon foo def dix ans fu ne fi nga dëkk waaw maa ngi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa Bawal fa ma dëkk réew maa war Réfane bawal gépp daal maa ngi leen di béggee tuubaatul ñëpp Babacar kontaan naa